بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث barakallahu fiik bismillahi rahmaani rahim suñu borom mu ne wadduha mi ngi giñ ci yoor yoor wal leyli ida saja di giñ ca guddi ga ay ba muy dal ay ba mu ñëwee di muur ak lëndamam maa waddaaka rabbuka wa ma qala sa borom yàlla day nekkul koo xam ne nii ku la jéppi la bàyyi la nekkulit koo xam ne nii ku la mere la walal axiratu xayrun laka min al ula lii di lu mujj la day moo gën ñeel la ci lu jëkk lii te mooy sa alaxira gën sa àdduna wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda xel se na laa jox sa boroom alaxira ba nga kontaan alam yajidka yatiman fa aawa ndax fekk lu woon ngay jirim mu daal di lay laq fat la wa wajadaka daalan fa hada mu fekk la ngay nekk aji réer mu jubal la wa wajadaka ailan fa aghna mu fekk la ngay doon ko ñàkk mu woom lal la fa amal yatima fala taqhar bu dee kii nga xam ne ab jirim la ngal la way bu ko not di ko bunduxataal wa amal saaila fala tanhar ngal la way aji laajja bul nekk di ko gëdd wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis amma fa hadis bu dee ne sa xéewali borom it dee ko tudd di ko wax mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi waat ci yor yor ca waxtu woowu lu bari ci la nit ñi jóg di kër kër yi doonte ne ni yonente bi alei salatu wasalaam daana wax ne doomu aadama day mboolem articulation bi dajewaayu ya xam yépp war na koo génneel sarax nangam sarax la nangam sarax la waaye mu ne loolu lépp dana ko wecci ñaari ràkk yoo julli ca yoor yoor te loolu it nga la waay jëm koo tàmmal sa bopp mooy boo xëyatee suba balaa tisbaara mi ngi noonu gën naa baax nga def ko avant midi mooy diggante fi jant bi fenke ba teg quelques minutes mën nga wax rek jamono ji ñu toll diggante sept heures ba midi diggante sept heures ba midi foo ci amee jot nga julli ci même bu doon ñaari rakka loolu la ñuy tuddee ah salaatu duha muy jullig yoor yoor borom bi it waat ci guddi comme na mu ko waati ci sar ba ko jiitu mu ne yow sa borom yàlla xamal ne bawu la ca merewu la ca booba suñu borom dafa toogoon ay diir jibril wàccewul alquran loolu tiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaadu dafa def erreur bu grave bu tax yàlla wàcceetul ci moom alquran suñu borom ñëw dalal xelam ne ko loolu dara amu ci sa boroom bàyyiwu la sa boroom merewu la te loolu it yow julit bum la dal mukk am na julit yoo xam ne dañuy dem yàlla nattoo leen ñàkk daq leen seen liggéey teg ci tuuti feebar dog dal ci jafe-jafe dal ci dañuy dem ba mujj naan moom man man lan laa def yàlla ah lan laa def yàlla ah mbokk du noonu yàlla mooy nattu ay jaamam am na ku la yées téeméer yoon jamono bi ngay am jafe moom yàllaa ngi yokk ay xéewalam kon mbir mi du question ni da ngaa def yàlla dara moo tax mu nattu la déedéet borom boobu ne yonent bi alayhi salaam yow allaaxira laa la waajal sa allaaxira gën sa àdduna loolu it moo taxoon mbokk yonent yàlla bi ku dëdd woon àdduna la na am daana dem di jihaad yàlla di indi ci moom alal du dul jeex waaye dafa dëdd woon àdduna lekkam demewul woon noonu dañ ne këram daawuñu tege la ñetti fan yoo xam ne reer nañ ba suur yéen ñëpp dégg ngeen daanañ toog ay weer ci du fa tàkk lu bari ci ay basang la daan tëdd sallallahu alayhi wasallam néeg yu xat la yoroon ba ko mel ni ibnu musayyab nekkoon imaam ci jumaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba ñuy toj néeg yonente ba am na lu ko naqari lool mu ne dañoo waroon bàyyi fii néeg yi génération yi ñëw xool nan la yonentee yàlla bi doon dundee yaakaar naa julit bu demoon ba gis loolu doo jël mukk ay 500 millions 1 milliard di ko investir almadi pour yàgg sa soxna ak sa xaj ak sa ñaari mbindaan ak yooyu kenn xamul ala kulli xaal dafa dëddoon àdduna ndax lu mu daan wax maa li wali dunia maak àdduna lu ñu séq dama fay jaar rek di jàll ca mbokk mi ngi noonu 63 ans la fi def ba mu faatoog léegi rek def na ci barzaq 1400 et quelques années mi ngi noonu alaxira moo gën ñeel la boo ñëwee alaxira dinaa la jox ba nga kontaan yonente bi alei salatu wasalaam ne du ma kontaan fii kenn ci sama xeet ñi daan wax la ilaha illa allah am lu tol ne misqala zarra ci ngëm mi ngi ci biir ajjana looloo tax ba daanu wax ne yàlla dana ko may waa ajjana ñeenti sàppe la ñuy doon ñetti sàppe yépp ci xeetam la ñuy bokk yàlla na yàlla subhanahu wa taala fayal ñu ko borom bi nag commencé wax lim ko defal mais yow xanaa yonent bi fekk ma la woon ngay ab jiriñ ma laq la ca mbokk yàlla bu ko neexoon day dem ca doomi buur ya def leen ay yonent bu doon xalaatu doomu aadama dañ naan yonent àdduna bi yépp kay booba puissance yi mag yi fa nekk mooy faris ak ruum romain yi ak perse yi dafa doon dem ci seen doomi buur yi jël ci koo xam ne mooy nar a nekk yonent ndax kooku di am pouvoir waaye dafa dem ci digg àll ba ca makka ci nga xam ne amuñu dara ba dara boo la jeex tànn fa ku muy def yonent kooku mu def yonent daa dem fekk koo xam ne bàyyam daa dee xamul sax bàyyam bi muy avant mu judd bàyyam fàttu na mu jël ko na ma ko yonent avant ma koy na ma yonent kon la nekk jirim waaye teewul yàlla boole kook maamam maamam mooy ki ñuy wax abdul mutalib maamam jooju jël ko bëgg ko bëggeel goo xam ne jiggi ne dayoo ba muy faatu mu woo doomam abi talib ne ko dénk naa la sa doomu ah frère bi di abdallah abi talib jël yeneen ci yàlla bi yóbbu këram abi talib boobu moo jur ali ibn abi talib génne la ko ci ay doomi boppam buy tëdd moom lay tëddal buy lekk moom lay lekkal kon kay la ko yàlla waxoon am na mooy yow jooyoo baay mi ngi noonu sa baay dee na waaye li nga am borom borom baay yi dund amuñu ko gannaaw ba it yow ndax fàttali ko woone yow yonente yàlla bi maa la fekkoon nga doon koo xam ne ni da ngaa réeroon xamoo nu ñuy jaamoo yàlla da daan dem ci àll bi di tëju ci xaaru xira pendant un mois di xalaat xam ne ne ne xërëm yi duñu yàlla xam ne ne yàlla kenn wuru ko bokkaale amaa nag nuñ koy jaamu xamu ko xamul nu ñuy julli xamul nu ñuy woore xamul aj makka xamul dara yàlla commencé nag wàcc ci moom wax yu jàngal ko diine loolu mooy mooy mooy mbir bi am na ko doon laaj question bi mel noonu yàggul dara ala kulli xaal suñu borom yàlla yit na ko fekkoon naa la nga ñàkk ma def la nga koy woomle que la chaque ne yonente bi alei salatu wasalaam jeunesse am pauvre la woon pauvre la woon daan dem di sàmm ñu koy fay mu daan dem di joxe boppam employé ñu koy liggéeyloo ba bàyyi yàlla subhanahu wa taala boole ko commerçante bi gën a mag ci makka muy xadija xadija jël ko comme employé jox ko njëggam mu yóbbu ko cham bu ñëw indi bénéfice bu dul jeex mu gis ci moom ay jukkoo jaamam bi mu ko boole loon di may sara netti lu ko comportement voyage bi te la ko xadija proposé na ko damaa bëgg nga nekk sama borom kër fekk mboolem kilifa màkk yi ñi nga bëgg a takk si xadija mu bañ loolee mu daal di nekk borom këram xadija jël bakkanam ak alalam yépp jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaa yi kon woom la ñëw la kay mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala loolu la wax ci wàll googe mu ne ko nag yow lii maa la ko defal ah kon nag yonent yàlla bi fexeel bi ab jirim bu ko nekkati di ko gëdd di ko not di ko jël alalam ndax yow ko jirim nga woon ma jàppale la loolu it mbokk mi ngi noonu doomu adama war ngay xool toujours sa cosaan te mooy bari na ci ñu bari ba ñuy jóge ci àll ba seen xottu mbubb lañu indi ñëw fii am ñu leen dalal yaatalal leen ba tey ñu yaatu bul fàtte loolu waay su ko defee yow it koo mën a yaatal ba mu mën a demal boppam nga la waay yaatal ko am déet suñ borom mu ne yow yeneen bi jirim nga ma fat la kon kay jirim yi it bu bàyyi leen xel bu leen bu leen xatal ci dara laa taqhër bu ko not bu ko xatal amma itamit yow mii da ngaa nekkoon ko ñàkk ma may la nga woomle ñi ñëw di la laaj bu leen gëdd di leen yuuxu mbokk kiy laaj ñaar ma mën a am nga jox ko wala nga wax ko wax ju neex wolof nee na wax ju neex sarax la borom bi ni imma tu'ridanna anhum ibtigaa rahmati min rabbika faqul lahum qawlan maysura waaye mbokk laaj bi yàlla yi wax fii nag bokkul ak laaj yi xew léegi bokkul ak laaj yi xewoon ci suñuy aaday aada masalan am nañu ay aada yoo xam ne ñu ngi ko doon seeni maam mooy man nangam la tey jii même boo gaareeroon mercedes it jàpp nga ne am nga droit laaj nit ñi ndax man nangam la li ma li nga doon boo ko bañee da nga caa gën a ñaaw kasa wa kasa mbokk loolu déedéet aada la bu ñu doon suñuy maam mi julit wur te def la nga xam ne aadaam di wër di laaj nit ñi ñu ngi noonu ku ngénte nga ñëw taxaw tagg ko ratatatat mu jël jox la loolu mbokk musiba la mu bokk beneen musiba biñ ci yàlla dolli léegi mooy profession laaj léegi dañoo am léegi profession laaj nga noonu jeune ba taxaw dara jotu ko mu ñëw taxaw ci kanamu jàkk ji laaj léegi-léegi mu récupéré fi 2000 3000 fee 3000 fee léegi loolu nekk profession loolu mooy laaj mbokk loolu lañ xam ne musiba bu rëy la yonente bi alei salaam nee na nit ki du deñ di laaj lu dul aq ba bu ñëwee yomal qiyaama kanamam gi benn yàpp du ca des loolu di musiba bu tar yonent bi alayhi salatu wassalam dañu doon moytu loo laaj lu dul ci extrême nécessité loo xam ne dem nga ba sës ba sës ba mënul ñàkk waaye bu dul looloo yonent bi alayhi salaam nee na kenn du ubbi buntu laaj lu dul yàlla ubbil ko buntu ñàkk yow jeune boo bëggee doon ko torox rek jëlal yoonu laaj def ko muy sa yoon kenn du ubbi buntu laaj lu dul yàlla ubbil ko buntu toroxtaange yonent bi alayhi salaam loolu doon wax ne yaddul ulia xayrun min yaddi sufla loxo bi féete kaw moo gën bi féete suuf ay kiy joxe moo gën koy nongu waaye it la ca yonent bi leeral it buñ koy fàtte bul jàpp ne kuy joxe toujours yaa gën ka ngay jox def ne yaddu sufla mooy assail yaddul ulia mooy almuti nee na yo- loxo bi féete suuf mooy kiy laaj waaye yonent bi salaa salaam ci boppam lañ ko doon jox muy nangu waaye lam ci jublu mooy ki ñëw di laaj nit ki mu yëkkati di la jox jamono bi nga koy laaj moom mooy ka nga xam ne moo la gën waaye ala kulli xaal suñu borom nee na ci lay laaj jox ko rek mi ngi noonu bu ko janni bu ko gëdd ca loolu itamit nit ñi dañ koy def am naa la suñu borom tëje saar bi mooy xéewali yàlla dee koy tudd di ko wax doomu aadama yi nag lu nekk mën nañ koo siddoog nit ñi suuf seeni xéewal problème daal moom bu ñëwee da nga ko séddoo xarit ya séddoo ko njaboot gi lu ne nga jabbatu wax wax sama lii sama lii sama lii sama lii te li ci gën a metti wallaay di ngay gis benn waay boo xam ne di ko yàlla dénk ci alal mais teewul foo ko fekk mi ngi jàmbat foo ko fekk mi ngi jàmbat mbokk loolu baadoola la gore di la doomu aadama da nga war di sant yàlla suñ borom nee na tànk yéen a ngi may sant maa ngi leen di yokk doomu aadama da ngay war a nëbb say nattu yi la yàlla di nattu innama ashku basti wa huzni ila allah say natt nga koy dénk yàlla di ko diis yàlla am naa xiiwal yi la yàlla defal nga di ko wax nit ñi ba ñu xam ne yaa ngi sant yàlla bañ a doon koo xam ne foo toll yaa ngi jàmbat yàlla na yàlla boole ci ñi koy sant nañ ko war a santee. yaa ngi noonu.